mbirum ngone soosu lay del si waat rek tuuti euh, gis nga professeur bim mu demee ba nga xam ne léegi siiw buntu ut koppar la ci la ñëpp jóg ngir bëgg a siiw tey ngone si di naa balde bu dul woon ak siiw du mën a am accès ci waa ji mun na nekkaloon def concubinage salon li journal yi fësal ak li ñu wax ne moo tax ñu jàpp ko imaginel xale boo xam ne ba muy am problème ak Diop ISEC ñu ngi doon wax naan ay dix-huit ans ak dix-sept am mat naa matul ñu naan këyit ya lii wane na lii lii wane na laa boobaak léegi matagul ñaari at ba ñett wala ci lay toll kon ñaar fukki atam ci lay toll wala la ca teg bariwul goneeg ñaar fukki at naka la mënee am liberté wi am appartement dëkk fa am liberté wu boo déggee li journal bi wax mooy ay jànxam ay jànxam lañ wax ñaari jànxam ñoo doon yónnee message waa ji c'est-à-dire xale bu am vingt ans bu xonq cur am na appartement ba am ñaari jànxam sew-sew boobu ñaari jànxam ngay posé wu question ana fameem anay mbokkam lu ko yóbbee lii lu dul rek am na benn xew-xew buy xew ñuy jël ay xale di leen gàlliloo mooy li may tuddee petit gàlli mm-hmm. pas gàlle mais petit gàlli jël ay petit di leen gàlliloo mm-hmm. loolu moo ko lancé ndax bu dul woon loolu kenn xamu ko woon ma nga fa mu nekkoon nee na woon gaa bëgg na lii mu nekk nii doon ko def waaye bu ko sénégalais yi xamee lii moom moo ko indi sénégalais yi xam ko muy petit gàlli ñan la produire mooy ñu mel neew tudd nga ko léegi ay maam jaara jigéen ju tedd ju baax ñu tuddee ko nit mu waroon a tedd baax waaye ñu tuddee ko nit bokk ci gàlli googu moo waral mu mujj gàlli ba asaru di futteeku ci àdduna bi yëpp nit di ko seetaan nit ñi di ko seetaan ba ci scandalu Jóob isek bi bi muy am am na keneen ku bokk ci gone gàll yi bokkoon na ca ña doon tëralal pièce jóob ca ña doon def film baag yu ni mel geneen gone ca biir seen petit gàll yi bokkoon na ci ku bokkul ak jey naa moo tax dee mu dégg naa sama xarit Ndoye Bane maa koy nuyu bi mu bi mu leeralee Sénégalais yi ndax ci moom laa njëkk a déggee xew-xew bi laataan l'observateur tey di ci bind mu mu wax gone Dakar yi fit wi ñu am ma ne ko ah, bu ma arrière at ci ginnaaw de maag yow dañ daan bokk di dénoncer seen petit gàlle xëy na nag bi ngay wax li indi lii am na loo fàtte mooy lañ nga daan dénoncer démb muy seen petit gàlle xëy na fàtte nga koo boole ci mbir yi te ci la bokk ba tax na kon am na loo xam ne musiba la ci société waxuma ay mbokki naa Baldé ndax nag dafa mel ne ku amul mbokk kon jaratul sax di wax ay mbokkam nañu yar seen doom ak nañ ko téye mais ñi mat a waxal sëñ fàllu mooy woy jur yi bàyyi seen doom ñuy dem ci po yu mel noonu. ñoo ñoo mat a waxal fii mu toll nii. képp ku bañ sa doon sa doom asaru sa doom yàqu sa doom mel ne Dieyna balde mii duma ko duma ma raay raayal wax. ndax nag bu weesu ba ca Jóob Isaac dañ doon ñenn ñi dañ doon wax naan noo est-ce que du lii xale mag mën na ko nax nangam ak nangam waaye xale bu dem ba am fit dem def concubinage dëkk ak góor. am fitu teg dil di sàcc téléphone am fitu après nga avoué ne lu tax nga koy def mooy daf la doon yi dafa la am yeneen góor jigéen yu mu nekkaloon yu bokkul ak yow mais yow noo def ba mu nekk ak yow ni nga def ba mu nekk ak yow noonu lay nekkee ak say morom mooy yow yaa dem dëkk góor léegi yow ba dëkk góor te takku léegi après loo naan ko ci man kese nga yow yow ñëwul fekk si la fa nga ne mais yow yaa am fitu dem dëkk ak moom mais ñi mat a waxal mooy ñi am seen doom bañ ñu asaru ba mel ne gone gii nañ téye seen doom yi ci yi ñu leen di boole ci ay jàng jàngi wëy akum jàngum pecc gone gu toll ci jàng dañ ko war a boole xanaa ci concours boo xam ne ñu war a dooni médecin wala docteur wala wala wala wala waaye yow sa doom toll ci jàng boo waxee ñu ne xale yi nga xam ne ñoo gën a baaxi not la ñuy jël di leen boole ci pecc meeg euh, pomme yi nga xam ne moom la ñuy def xale boo xam ne école am moo fa raw mais période vacance xanaa kooku da ko war a boole ci concours boo xam ne bu delluwaatee ca école dafa war a gën a yokk ay euh, points mm-hmm. gën a yokk xelam gën a yokk njàngam mais xale loolu rek mooy wane ne dañ yàq xale yi yow tànnoo xale yi gën a doon daare ca école ba mais la ngay tànn mooy xale yi nga xam ne ñoo gën a xereñ ñoo gën a baaxi not ñoo ñu ngay sélectionné pour lan da leen di jël pendant trois mois yóbbu leen ci ay hôtel gis nga xale yi luxe bi ñu leen di tàmmal après ci la ñuy jógee jàpp ne luxe rek la ñu war a dund mooy concours bu ñu jëlee mbuur lañ leen di yóbbu yóbbu leen sali dëkkal leen ci hôtel ñu fay yendu di fay yeewoo dem def répétition ñëw dellusiwaat ñu dugal leen ci ay bis yu ñu climatiser ñuy wër fu ne ñu dem kooku pare nga teg ko ci kaw seen mu wëy nga wan ko Sénégalais yëpp bu demee école star la fay doon su génnee ci mbedd mi yow dama laa sopp dama sama fans nga dama la doon yow laa voteel sax bi ñu bi ngay def concours bi mais xale boobu li muy def ci boppam mooy moom star la war a doon te milieu sow bis bi star xam nañ milieu bi lan moo fa nekk sexe alcool dorog yooyu moo fa fees dell yooyu xale bu fa dugg yàqu mag ñi fa dugg sax ko ci yàlla dimbalewul nga yàqu waxuma gole gone gu ndaw kaw seen millier yooyu la milliers sowu bis bi ñëpp xam lan moo fa nekk sexe fa ne dorog alcool yooyu moo fa fees dell léegi nag koo xam ne nii dem nga lan moo indi woon coowam ak kañ doon tudd la jiitu woon lu dul def ko def ne daf koy jàppale ñëwal ma dugal la studio nga génne cassette nangam ak nangam du mbir yi foofu la jaare léegi ki nga xam ne yow war nga génne benn kaset war nga siiw te mënoo siiw ñi lay jàppale pour nga siiw lu ñu la dugal nga dugg ca nan moo tax États-Unis yeneen réew ci àdduna bi ba suñu réew ñi ngi ragal euh, suñu artistes yi yegg fa ñu dugg ci éliminaat yi dugg ci loosu franc-maçon yi lan moo tax mooy bëgg a nekk ci kaw tollu nga fenn fa xam dañ lay gëmloo ne la ah attention balaa ngaa mën a yegg ci yenn niveau yi il nga ñëw bokk ci ñun ñu jàppale la léegi nga nekk ci kaw yooyu moo ko indi ba tax na kon waajur yi nañ jëlaat seen responsabilité ci seen doom bu ma seetaanee jur bu naan waaw sama doom li tax ma bàyyi ko mu bokk ci concours bi nangam ak nàngam nooy bàyyee sa doom muy bàyyi bokk ci concours pàkkar ñi hmm. concours pàkkar ñi nga hmm. bàyyi sa doom mu bokk ci yow sa doom moo moo jël ndam moo dàq fecc dàq wëy après nga koy tiitaroo mais jur yi tamit wax dëgg ndax tane nañu ñi nu jur waajur dafa war a tane ki mu jur tout mais ndax tane nañu ñi nu jur hmm. mais am na loo xam ne nii yaay moo ci war a protéger doomam bàyyi moo ci war a protéger doomam ndax xale xamul lu dul bànneexu bakkanam effectivement su xale yi gisee xale yu am 14 ans am 15 ans am 13 ans ñu gis leen ñu nekk ci écran bi mais dañuy bëgg a mel ni ñoom bëgg génn ci télé bëgg yor micro mais yëpp woy jur yow yaa naan ko lii bokkoo ci lii waroo cee bokk fi nga bokk mais li ngay posé waat question mooy fu nu bokk fan la ñu bokk mais am na koo xam ne fa mu bokk du ko may mukk doomam mu koy exposé ci àdduna bi cat cet fu ñu toll di ci muslu lu koy indi ñeme bët démb da nga naan dégg mooy tundikul ñeme bët dangaa wow bët léegi xale yi ñuy former seen petit gàll yépp ñu wow bët lanu wow bët dindi ndax lan pour nga mën a wéy taxaw ci kaw seen in foog nga ñàkk kersa ba pare d'abord dañ la ciy tàggat ñàkkal kersa nii ngay doxee nii ngay xoolee am na loo xam ne doo am kersa doo nekk koo xam ne kuy sëgg nga dindi ci yow kersa la ñuy def ba noppi nga soog di mën a taxaw ci kaw seen nag di wéy ba tax na kon ku wax euh, li nga xam ne moom moo xew faaw nga arrière nag wax li ci ginnaaw te jur yi li ci am solo rek mooy ñu jël responsabilité ci seeni doom ba ñu bañ a dugg ci yi nga xam ne da leen di yàq rek ndax nag lu ci ñuul après ñëlee di organiser mbir yi doo dégg mukk scandale yu seen doom nekk ci ndax seen doom yi bokkuñ ci ku ci nekk ñi organiser pom yi am nga doom joo mën a dugal ca poma mais doo ko ci dugal pourquoi duñ leen ca dugal léegi doomu jàmbur yi la ñuy jël di leen former ci yii après ñuy dugg ci yu mel nii ñoom seen doom yi ñu yóbbu leen ñu jàngi buñ paree ñu jox leen seen bërëb yi ñu liggéeyee ñu jiite ko yàlla ñu yàlla suturaal rési ñu dem dellu si incha allah